jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir wala si biir réew da ngeen di abonné si Tawfekh Production ngeen mën jot ko ngir mën a xam li bàyyil Macky fàtte li essentiel bi mooy tey jii li xew ci réew mi li xew ci réew mi nag mooy le président Ousmane sunko mii ñu bëgg a noot noot ay droit am noot ko fexe ba dellu démocratie bi dellu ginnaaw damay fàttali ne président Malick Gakou moom moo démissionné ci gouvernement euh, librement te tey jii xalaatul benn yoon delluwaat ci gouvernement ñun grand parti du ñu nangu ñuy delloo démocratie ginnaaw du ñu nangu ñuy noot askan wi du ñu ko nangu président Malick Gakou du ko nangu te bien évidemment dina taxaw ci kanam jiite xeex boobu ànd ay ndawam ànd ak ay ay ay ay jigéenam ànd ak ay cadre am bu weesoo loolu aussi président a bàyyi président Ousmane Sonko ci xeex bii nga xam ne nii mi ngi koy xeex parce que ñun position de principe lañ yàgg ame ame nañ ko ci kaaw Khalifa Sall amee ko ci kaaw Karim Wade tey jii dañ koy amee waat ci kaaw Ousmane Sonko tant que ñi ngi fi tant que ñi ngi grand parti dinañ continuer di xeex pour que démocratie bi taxaw fii ci Sénégal pour que aussi nit ñi sàmm ñu sàmmook seen i ak seen i